laqi lisaani waxlan minhu al-uqad waj'alhu zakiran wa shakiran abad mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen ànd ak ñun di ñu teewlu ci seen site bii nga xamante ni moo di Rafah TV waaye itam ànd ko ak tew feex Production mu daan en direct ngeen ñuy suivre fii ci euh, jumaay euh, Touba jumaa ji nga xamante ni balaa ci kanam tuuti euh, Cheikhul Khalifa Serigne Mouhamadul Mountakha mi ñuy ñaanal mu gudd fan lool te ànd ak wér ci kanam dana fi ñëw ànd ak ay kilifa yu tedd. ngir euh, joxe sunna si nga xamante ni mooy ñaare raakaa yi fii ci jumaa ji tedd waaye ma ànd ci présentation bi ak sama mbokk Serigne Guédé Sarr mi nga xamante ni mi ngi yëngu foofu ci site internet bu mag boobu di Tawfekh Production xam naa Serigne Guédé ñi ngi lay nuyu di la ziyaara baax di la ndokkeel tam ci bis bi nga xamante ni moo di Aïdul Adha al Mubarak ah, jërëjëf ah, Cheikh Abdoul Ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah, comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad Ndiaye waxee di suñu naataango di suñu xarit Ah, tey jii ñu ngi fii ci Touba ah, ci jumaa ju mag ji ah, di waajal julli gi nga xam ne mooy julli iid di sunna su feddaliku ci lislaam mbokki julli yi ñi fuñ mën a nekk ci adduna bi ñu di ko def fii ci Touba nag ren ku ne xam ne ne am na ay soppandiku yu xaw ndaw yi ci am ndax dañoo nekk ci jamonoy coronavirus fu ñu daan jullee changé nañu ko ci biir jumaa ji la ñuy jullee loolu lekk nekk ay ay ay ay ay ay soppandiku yoo xam ne incha allah dinañ ci gën a dugg baax a baax ndax ku xam ne ne jamono ji ñu nekk jamonoy mbas waaye ñuy nuyu jullit ñëpp nag di leen ndokkeel nag ci xew bu tedd bi Cheikh Abdoul xam naa ne tabaski bu ñu ko waxee ah, ñu bëree bëri danañ ah, seen xel dana dem ci ah, ray xar waaye ci wàllu lislaam it am na yeneen ak yeneen yu ci aju kon mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak Tawfekh Production ak TV ñu leen nuyu te di leen ndokkeel jërëjëf a baax mbokk yi nga xamante ni yéen ànd ak ñun ñu nekk fii ci jumaa ji en direct ànd kook euh, Tawfekh Production Rafah TV di doon euh, ñaari site internet yoo xamante ni yàgg nañ ko def mu doon liggéey boo xamante ni am na solo waaye ni nga ko waxee sëñ Guédé mhm. euh, feet gii tabaski da di feet goo xamante ni gu ràññeeku la ci lislaam yaakaar naa ne ñaari feet rek mooy yi am ci lislaam mooy Aïdul Adha ak Aïdul Fitri di ñaari feet yooyu benn bi tey jii ñu ngi ci waaye di ñaan yàlla suñu borom li nga ko waxee mu tombee gi tam xew-xew boo xamante ni yëngal la adduna daj na kàpp àddina muy xew-xewu mbas mi ba tax tey ji euh, julli gi ñu jullee ko fii ci biir jumaa ji ndax bu njëkkoon ca penk ba lañ ko daan jullee mbooloo mi bëri lool macha allah fii nag organisation bi dafa mel ni fii lay gën a yombee ndax bu defee bunt yëpp dañ koy daal di fermé du ñàkk ci biir waxtaan wi danañ ci ànd ak kenn ci commission bi nga xamante ni ñooy waa daa'irat Muxaddamatul Xidma ñu ngi ziar bu baax oustaz Abdoulaye Diop oustaz ak ñoom sëñ Assane Mbengue waaye oustaz Makhtar Kane du ñàkk danañ am kenn ci ñoom sëñ Abdoulaye Bousso ñoom waaye bu ko defee rek ñu laaj leen ñoom ne organisation bi nan la demee waaye balaa ñu ci egg euh, ni nga ko waxee léegi dafa tombek dafa tombek euh, xew-xew boo xamante ni xew-xew bu lislaam la xew-xew boo xamante ni itam bu jar a bàyyi xel la du bu ndaw nag xew-xew bu mag la muy boo ko delloowaatee ca euh, la waraloon suñu borom Euh, waral ko ci ñun muy euh, xew-xew euh, jaayante mhm. sacrifice la Aïdul Adha sax lañ koy tuddee feetu sacrifice la mhm. kon comme eggu egguñu ci maqaamam Ibrahima bay mën a sacrifice wala yàlla dañuy natt natt bu tollee ba mu tegoon Ibrahima war nañoo jéem a sacrifié wu nag ba suñu bakkan mhm. waaye suñu suñu deret mhm. ni ko ni ko suñu borom waxee inna allaha ashtara minal muminina anfusahum mhm. wa amwalahum bi anna lahumul janna war nañoo fexe ne góorgóorlu ñun sacrifié bu baax a baax euh, euh, waaye nag jaar ci yoonu maam Ibrahima mi nga xamante ni moom la ñu yàlla xàllal moom la yàlla xalal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu doon itam royukaay boo xamante ni euh, su euh, su Yonent bi sallallahu la ko ci ay njàngat yu bëree bëri mm-hmm. kon su ko defee sëñ Gare ne feet gi mm-hmm. Euh, feet la goo xamante ni gu gu mag a mag la ci lislaam bokk itam di chair min chaairil islam gis lu yëkkati xalifa bi yëkkati mm-hmm. jullit ñëpp tey ji mu doon bis boo xamante ni bisum la mm-hmm. ci biir euh, xutba yi du ñàkk ci dégg sax mm-hmm. euh, imam bi di wax ne bis bi bisu feet la waaye bisu mbégte la yaatal itam la rawatina ci sa njaboot kon lislaam moom yow mu ak li wa macha allah kon dafa mel ne sëñ Guédé mën naa laa delloowaat waxukaay gi ñu gën a xuus jëm ci waxtaan bi incha allah waaw tabaarkallaahu euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, point yi nga tudd dafa am solo lool waaye nga tudd ci nag point jaayante Aïdul euh, Adha waaw Aïdul Adha moom dafa dafa tënk lépp dëgg la nag jullit ñi xëy na yenn saa yi dañ koy dégg noonu te duñ ko duñ creuser mot bi bu xam dëgg-dëgg signification bi na ci biir waaye Seydina Ibrahima mi ngay tudd it mu nekk koo xam ne exemple la ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa tabi millata Ibrahima hanifa nga xam ne moom moo jàngal jullit ñi naka la ab julli war a mel ku ne xam na ne it euh, euh, musta jaamu ay xaram ku ne xam na ne suñ borom moo ko gindil boppam moo ko leeralal moo ko leeralal xolam wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa li yakuna min al muqinin kon Seydina Ibrahim ci muqinin yi la bokk yonente bi alayhi salatu wasalaam it maamam waaye muy royukaayam waaye euh, yaakaar naa it tabaski dañ ciy gis ay points yu bari bari dafa mel ne topp ndigalu sa wayjur dana ci feeñ ak topp ndigalu sa borom kër foofu it diggante ku mel ne Hajara ak eh, Seydina Ibrahima boo ci doon dikk Seydina sëñ eh, eh, sëñ Abdou Lahad Ndiaye ana la waaw jërëjëf sëñ Guédé ni nga ko waxee am na solo lool tabaski lépp ay ay jàngat la durusun waa ibar su ko defee kenn ku ci nekk rek ci bi am na koy war vise ci ñetti personnages yi nga xamante ni ñoom ci ñoom la yàlla dogalee feru tabaski muy maam Ibrahima di un père de famille boo xamante ni bu déggal suñu borom la subhanahu wa tey jii buñ jékkee ba Ibrahima ñu di ko waxtaane ci ci ay jamono yàgg-yàgg néew na ci yeneen yi ku ñuy waxtaane comme nii ñu koy waxtaan di ko fàttaliku loola la ko waral mooy lu rëy la nga xamante ne moom la defar muy nangu nga xam ne nangu la na ko suñu borom subhanahu wa taala waaye boo jëlee doom ji itam di Ismaila moom itam xam nga bi muy bi ko su euh, Ibrahima di di gaaral loolee ko suñu borom waxoon boobu fekk ne nekk na jeune kon jeune bu nekk war nga cee jàng topp sa ndigalul waajur waajur wi nga xamante ni bu tegu ci aw yoon la lu mu la digal da nga koo war a def mm-hmm. ndax suñu borom kat bi mu santaane wa xadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni la ci rek mm-hmm. ihsaana kon tabaski bu jagasee bu ñëwaatee war nañoo gën a yeesalaat bu baax a baax njàngale yi mm-hmm. jëm ci njaboot gi ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax Ismaayla mii ci nangu gi nga xamante ni nangu loon na ko baayam ndax euh, la ma ko chartaloon dafa doon loo xamante ni lu rëy rëy la mooy dayob charte nag dayoob nattu dëgg dëgg dëgg moom lañ ko natt mooy yaa bu ne yaa anni ara fil manaami fil manaami anni asbahuka kon dafa mel ni kon loola néewaana waajur di fa egg ak doomam kon mooy de choses yi gën a suufee yi nga xamante ni waajur mi ngi koy sàkku ci doomam tem doon ndigalu suñu borom subhaanahu wa taala te suñu borom waxoon na ko Seydina euh, sang boobee di Luqman ne ko na nga dénk sang njaboot Luqman itam daan na dénk ak njabootam daan na leen waar loolu itam jàngat la boo xamante ni waajur yi war nañu gën a delloo si waat loola noonu su ko defee tam beneen ba nga xamante ni mooy bu am solo itam te majeure partie ci euh, population bi ay jigéen lañ loolu la ñuy wax su ko defee ñoom itam war nañoo gën a jàngaat bu baax a baax ci tabaski waaye nangu gi nga xamante ni maam Haajara moom nanguloon na ko maam Ibrahima xanga moom bi ma ñëw Màkka dara nekk foon Màkka ay xur rek la woon ak ay doj mu ñëw des far nangu faa wéet ak suñu borom subhaanahu wa taala xaar fa yàlla rek xaar fa ba yàlla tey jii indil ko gis nga tey jii boo demee zam-zam ca sababu wër gam doon wëree am ndox muy defaree doomam moo ko moom ca la bàyyi ko hmm. bëri na ci sha'airul hajji hmm. manasik yi sabab sa day delluwaat ci mam haajara kon loolu dafa mel ne man sana sunatan hasana hmm. fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama kon dafa mel ni kon képp koo xam aji ma aji nga màkka wala sax nga rendi tabaski dafa mel ne maam ibrahima ak maam Haajara mhm. waaye itam ak seen doom jooja di mhm. euh, Ismaayla am nañ ci yool boo xamante ni kenn ku nekk war nga cee gën a jàng jéem a def lu baax nag rawatina nag ci loo xamante ni dafay des boo ëllëgee day dokk ci sa ay misaanul xasanaat kon loolu war nañ cee gën a taxaw tabaski daal euh, sëñ Guédé mhm. ay njàng la ay njàngat la yoo xamante ni lu bëree bëri la du rek ren di xar jëfandikoo ko mu jeex mm-hmm. waaye jaamu yàlla la ragal yàlla la mm-hmm. te yàlla sax ne woon na mm-hmm. euh, soxlawuma ci yéen euh, xar mu rëy wala sax euh, deret ju bëri déedéet waaye tax wallaahi laa ci bëri kon loolu itam sëñ Guèye war nañ koy mën a baax a baax lan yana lan yanaal allahu luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa ku ne xam na ne euh, comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad leeralee te mu leer naññ ci point yi mu tudd yëpp nga xam ne benn bu ne rek mën ta ñàkk ci ab jullit ah euh, ñuy ñaan euh, suñu borom defal ñu tawféex defal fan wu gudd nag ak wér-gu-yaram Cheikh Mouhamadoul Mountakhal Bachir mu yàgg fi lool nag te ànd ak wér ak mbooleem kilifa yu baax yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci réew mi ak fu ñu mën a nekk xalifa généraux yeeg ñëpp rek l'islam suñ borom gën ko gën a kattanal jullit ñi waaw ndax it jamono coronavirus yi dafa mel ne euh, Cheikh Abdoul Ahad euh, lu ama am solo ci jullit ñi gën a renforcer waat seen seen seen seen seen dimbalante kon xam naa yaakaar na am na nu muy demee mën nañoo yemale fii ouverture bi euh, incha allah di nuyu mbokk ñëpp wasalaam. waaw waaw jërëjëf sëñ Guède xam naa bala ñuy ñëw ci julli gi ndax fi mu toll nii 9h30 ci la ñu waxoon ci la ñuy julli incha allah mel na ni ki bi jege na. Euh, waaye itam euh, di fàttali rek na mbokk yi euh, sëñ sëñ Fallou Mbacké moom sëñ Abdoul Khader. nam ko daan defee. wax nañu itam moom moo koy taxawee. waaw romb na léegi kon mi ngi ci biir kon dafa mel ni kon xalifa bi. arrivé am rek la xaar su yegsee rek incha allah nañ ko baaxoo di defee mooy ñaar rakka yooyu nga xam ne ñaar rakka yu sunna la ñu defee ko noonu itam taas taas seen barke waaye ñaan itam xam nga démb la ñu màggal te euh, tey ji yow mu ayda addaxal mubaarak mm. kon su ko defee occasion la jullit ñi gën a ñaanal bu baax a baax suñu borom mm. li nga xamante ni mooy gan gi fi nuyoo te kenn yaatalu ko fi mm. suñu borom jëlee ko fi ba mu dañ fi set waaye nag dañ ci adduna bi nam ndax euh, yàq na lu bëree bëri bëri ci ci ci dund ak jafe-jafe incha kon xam naa ne sëñ Gene Euh, ngir euh, bañ euh, dara rombuñu rek yéen nga xamante ni yéenay ànd ak ñun ci seen seen télévision bii di Rafa TV waaye site internet bii nga xam ne moo di Tawfekh Production ñu koy ànd ak yéen ci événement yi bu mën doon rek wa tey jii ñu nekk fii ci kanamu jumaay ju mag ji nga xamante ni moo di Touba niis kanam tuuti rek danañ mën a seetaan dugg bi nga xamante ni xalifa général des mourides dana ko dugg moom itam dañ koy bu baax a baax barki démb rek wax dëgg yàlla gis nañ fi ndimbal yi nga xam ne def na ko waaye di sant itam ak gërëm xalif général des Baye Fall ci ci ci ndimbal loolu nga xamante ni wax dëgg yàlla lu ñu xaaroon la ci képp koo xamante ni taalibe murid nga waaye ci am nga ne ci lañ toll limub xar yooyu nga xamante jëlaat ko jox ko ñi nga xamante am jàngal la moo xamante ni wallaahi liggéey bu amoo am solo ñoom ñëpp ci njaboot gi kenn ku ci nekk rek wax dëgg yàlla def nga ci njaboot ba